mais tey ku ci takk góor ñi tamit moom ñi ci ëpp ñoom la. une part de responsabilité góor ñi mu laa gën a jox responsable bi. Mm-hmm. ndax góor mooy yar. góor mooy yar li ñu naan jabar da koy yàq mais doom dañ koy yar. Mm-hmm. mais am na ñu bare yaruñu dañuy xont rek xont ak yar duñ benn. mais mais jabar tam dañ koy tànn itam. waaw mais gis nga jabar kenn du ko tànn jabar des koy ñaan yàlla. Mm-hmm. saa boo jullee ñaanal yàlla yàlla na yàlla may jabar ju baax mais tànn bis boo ko defee wallaay lazim di nga ko rëcc fa nga dem ba yaakaar ba jàpp na moo gën ñëpp boo ko takkee indi ko sa kër moo gën a yées il faut tamit ñu bàyyi wéet gi wéet gi moo gën a indi yëpp mhm. fii ku ci nekk tey boo yoroon léegi kër gi ngay bëgg a tabax yaa ngi dem xool fa gën a wéet mhm. fu gën a làqatu nga takk fa sa jabar mhm. nekk faak moom mais ki nga xamante ne mooy ñëw xool fi gën a xumb fi gën a jege nit ñi tey sa doom lu mu def nit ñi xam ko mais jël sa doom teg ko ci appartement ñu wax mu ne noo bëgguma duggalante samay doom nii naa dugg na fi kenn xamu ko nit ñi dañ lay bàyyi ak sa doom. et pourtant ñu ci bëri loolu loolu lañ ciy daw c'est-à-dire jegeyantoo bi yàq bi mooy faral sax mooy waral yenn saa yi ñu ci bëri daw di daw. di daw au contraire nag jegewantoo boobu nag moo lay dimbali ndax tey xale bu dëkk ci koñ. Hmm. fii kër goo gis. Hmm. quartier bi lu mu bon bon am na cinquante personnes yu fay yeewu. mais nag Ous faut savoir que ni du Dakar. non dakaar mooy Saalum gis nga dakaar kaay ma waxal la Dakar mooy. Saalum dëkk dox dajale quoi mooy banlieue bi. Mm-hmm. tey boo duggoon xar yàlla bi Grand Yoff yëmbal Kër Massar yëpp nii sa àll bi di dundee ngay dundee. mais moo tax tey dañuy tibbalante dañuy toog ci bopp ko ñi dañuy waxtaanee. moo tax tey problème yu ci bëri yooyu gis. du hmm. xewee xewee ay ay ay Pikine ay Géejawaay mais ay Almadi lay xewee ay Mariste et tout ça moo tax may la lii Saalum du Dakar. ma am lu ma la wax na gis nga xale yooyu noonu def ko tey seen baay tey fi mu toll nii ku ci hmm. dugg si cité ñoom ñu ngi toog chaque dimanche. ñooy hmm. toog di naan ataay di waxtaanandoo di fubalandoo. xale yi nag amuñu loolu seen parents yi ñoo leen gëmloo ne li ma la wax léegi nee naa la yaruñu dañuy xontu gis nga xar mi nga yeew sa kër di koy yar mhm. kooku yaroo ko pour def ci moom éducation danga koy xontu pour moom ndawal lu baax mhm. Mhm. xale yi da ngay jël sa doom aj ko ci climatiseur teg ko ci oto yóbbu ko ci euh, select duyal ko ba mu fees mu lekk ba suur naan ba màndi tëjal ko ci appartement kooku yaroo ko da nga koy xont mu ngande di ponkal mais xel mi dara newu ci <laughs> nga gis nga gis nit di jox doomam cere. def ci moom éducation boo xam ne. tegal foofu sa loxo ba ñëw. en fait tey comme li ngeen wax sànq dëgg la jabar xam nga moom ndaw da nga ne dañ koy tànn. us ne kenn du ko tànn si jabar dañ koy tànn xam tànn bi ça veut dire que lan fan la ñuy waxee tànn tey nit booy takk jabar dugal ci kër goo xamante ne ñoom de am nañ diine. yaa ngi dégg de deux yow xool nga ay waajuram ni ñuy doxee. parce que parce li gis nga li ne ci reen bi rek mooy génn ci garab gi. Mhm. ci en général. règle boo gis nag am na exception mais raar la loolu. Mhm. Mhm. gis nga tey garab moom boo jiwee mango soo ko greffewul moom du doon lu dul màngo <laughs> te boo ko greffee mango ci ëpp dina am leneen nag mais mango ci ëpp. mais problème xamal na la kooku dina neex a defar quoi. koo xamante ne ay waajuram teg nañ ko ci yoonu siraatal mustaqim mu ne waa base bi dëgër na bu jàddee sax dina yoon neex a defar mais nga fekk koo xamante ne sa waay. amul base amul dara amul source amul dara te nga xool si njabootam si seen famille dara newul si ñoom defar ko day jafe deuxième chose film yi sànq nee nga d'accord aussi boo xoolee tey série yi ñaata série lañ censuré fii Sénégal yoo xamante ne dañ ko éliminer na dootul daw lan moo ko waral buñ doon wax lu baax duñ ko def parce que affaire tubaab lañu bëgg indiwaat ci dëkk bi dundinu tubaab lii Pape Doudou waxoon sànq dundinu tubaab baaxul tubaab lim li muy yaree doomu aadama baaxul tubaab doo dóor doo wax sa doom du ko metti mais teewul am na ci ñoo xamante si tey si si fi puis bon on va pas dire que ni série yi la parce que boo xoolee kër yu bëri kër yu waaw li ci ëpp d'accord mais tey waaw télé bi télé bi d'une façon générale parce que am na ñoo xamante ni tey dañuy télé seen doom série mais ñoo daax si novelas moom la ñuy def moo gën a moom laa lay expliquer nii la ne yow sa doom bu waajee fekk la nga jàpp tegle say tànk. loolu moom loolu moom éducation foofu la commencé yow sa doom day waaj ñëw fekk la nga tegle say tànk jàpp na velas. kër waaw léegi yow yow dafa dafatoo éducation yow dafatoo éducation de. da nga koy gën a pural rek. nit ñi daal sa waay ma wax la ñaari baat lañ delloo si sunu xel yi. Mhm. te jéem a yaraat njaboot gi. Mhm. loolu lu am solo la. loolu lu am solo man gis naa fi ay famille fii nii ma nekk nii barki yonent yàlla Muhammad bu ñu ma tegaloon kaamil day ñeme naa cee dóor sama loxo ne seen doom boo leen bàyyi woon ci ay góor 10 ans duñu duñu wàcc man gis naa ko maa koy dund fi ma nekk nii parce que xam lu ko waral xale boobu pourtant dañ ko yar loolu dong ko waral dañ ko daa lu jiitu ci moom te gis naa fi man ñoo xamante ne man mën naa waat ci alxuraan boo leen takkoon tey billaahi ñu jural la doom yu baax billaahi ñu jural la doom yu baax mais tey damay gis tamit ay parents yoo xam da ngay ànd ak sa doom sa doom sol loo xamante ne góor nga nekk góor yàlla ànd ak sa doom bu ndaw mu sol loo xamante ne fu mu romb góor ñi wax nga ànd ak moom yow fier ci loolu nga fier loolu kontaan ci mu sol loo xamante ne lu sexy loo xam loolu rafetul yaaram ba pare nga ne da ngay éduquer ñun ci marché bi lañ nekk chaque jour nit indi ànd fekk doomam nga gis mu sol loo xamante ne fu mu taxaw ñëpp di wax mais loolu dafa mën a ànd ak bu baax. ay tubaab lañ koy wax na dëgg. loolu mën a ànd ak bu baax. mais nag mais nag yenn saa yi góor ñi tamit dañ ci am dañ ci dañ ci am. dañ ci am wàll rek ah, amul wàll. lépp góor ñi la. amul ay wàll ak yooyu de. ñoom ñooy jël appartement bi genre ouz yi. loolu lépp waaw mais góor ñi ñoom la rek góor ñi ñoom actuellement moom li leen gën a sonal leen rek la mooy faiblesse. Eh. góor ñi ñoom leen dong moo leen sonal mooy faiblesse. Mhm. dañoo am faiblesse soxna yi. Mhm. wallaahi lazim tey xale jigéen ñi bu ñuy tàggu sax seen yaay la ñuy tàggu wala ñu ne la yaay tàggul ma sama papa yaa ngi dégg yaay tàggul ma sama papa lañ lay wax c'est parce que xam nañ ne paa moom bu ñëwee ba jàpp ci nopp paa moom moom ñu bàyyi ko mu dem waaw guddi gi parfaitement raison gis nga loolu day feeñ te en plus loolu même bu dee am na sax même bu dee am na parents yi ñu ko répercuter ci kanamu booy bañ koy gis fii ku nekk rek am nga koo koo am sa faiblesse am yàlla moo sàkk doomu aadama bind def loolu ci moom parce que ay nit kase lañ mais parents yi da nga gis jigéen góor am faiblesse si moom day dem ba da koy won doomam yi ah sa papa yabuma mais lan looloo tax xale bu ndaw bi di wax yaay tàggul ma sam papa sa papa yabuma wala nga ñëw taxaw say biir doom sa papa wax la defal gauche nga ne droite laay def sa doom yi toog di gis mm-hmm. bàyyil bàyyiwuma da ngay dem tuur wala xew bul dem tey nga ne damay dem mm-hmm. say doom di gis mm-hmm. loolu moo fi ama ah. mais mais mais mais léegi bon du ma leen téye lu yàgg xanaa peut-être dañuy wax ci solution yi comment faire pour euh, pour dellowaat yar bi nga xamante ni mu ngi fi woon comment faire pour pour pour pour pour mën a euh, euh, bañ xale yi sànku. solution bi de man sama solution bi mu bëgg a jox. Mhm. sama bopp jox ko ñëpp. Mhm. ndax yor naa soxna yor njaboot di yar. Mhm. mooy ñu delloo suñu xel. te xam ne àdduna yàggul. te ndaw moom. wax dëgg fa yàlla way jur bu ne sàmm la. bu bis peñ taxawee. ni la laaj ku ci nekk. lan sàmm bi nga yoroon noo ko doon sàmmee. il faut ñu xam ne carrément euh, gis nga nit. nit ku nekk. biir moom suñ borom moo ci warul boppam. lu ci war a dem dinañ ko ci dem. suñ borom dafa xëy rek ngay sabablu mais dogal gi ci moom lay jóge ñu bañ a jël lépp def ko ci ay matériel ay dëkkuwaay waruwaay loo lekk loo naan. ba fàtte bi. non affaire bi mooy liggéey bi. yar nit ñi mhm. ci dëgg mhm. ñu bañ di naxante mhm. yar nit ñi ci cosaan xamal ne la ah sa maam de wax dëgg fa yàlla sëy na sëy na ak sama baay ba jóge fa musul fay musul xuloo musul sànni baat musul def nii musul def naa man it de wa sama yaay bi ma tegee sa kër baay bi ba léegi de musuma réeroog sa papa mosuma woote musuñ ma xamal dara samay dëkkandoo nii ak nii ak naa yooyu noonu boo ko defee ci bopp xale bi donc loolu la ñuy nit mu dem gis nga nit boo jombalewut sa bopp dara lu ne lu ne mën nga ko def ay kii bu ma gisoon lan laay fan laa jëm yooyu dafa baax ci nit ndax dangay nit il faut nga am koy bàyyi xel nit boo rusut kenn bàyyi woo xel lenn lu ne ngay def li ma mën a xamal daal mooy mm-hmm. ah ñu xam ne àdduna yàggul mm-hmm. xale yi ñooy dooni mag ëllëg nii bu subaa dañuy génn mm-hmm. wàññiwu leen dara. Mm-hmm. njëkkee woo ko fi doo ko fi mujjee. Mm-hmm. boo demee dégg nañ ko pay loolu lañ leen di wax. <laughs> mais ëllëg après bu ñu jàkkaarloo seen wi moroom. Mm-hmm. jur doom. ba mu màgg ñu ne la sa baay kenn xamul ëllëg looy say doom lu ñuy dooni affaire bi du yow say doom ngay sóor gis nga liggéeyal sa doom ay bien bàyyil ko fi neex na lool mais liggéeyal ko fi wéy wu rafet buñ buñ ñëwee ñu naa la sa baay vraiment jàmbaar la sa baay moo fi taxawal jumaa ji sa baay moo fi indi daara ji sa baay moo defar ñii sa bàyyi lu fi musa nii lii la ci lu rafet loolu lañ mais léegi talatuñ leena étage bu baax la ñuy njëkkalante bàyyil ko seen i njaboot dëkkuwaay waruwaay yooyu yëpp amul sens jërëjëf loolu daal laa bëgg ñu <laughs> bàyyi ci xel ñu góorgóorlu. joxal ma saa yi mu tàgg mu tàggatoo waale alors kilifa gi un conseil boo jox boo jox ndaw yi rek gën leen a conseil gën leen tegaat ci yoon bi. conseil bi jox ndaw yi quoi. Mhm. waajur yi ci boppam. Mhm. ñoom. Mhm. kii xale yi quoi. seen bopp. papa ak yaay. ñoo war a kii seen doom yi quoi. parce que doom dañ ko war a yar. yar ko ba mu màgg. ëllëg mu mën a tekki. dëggantaan mënutoon dara. Mm-hmm. waaw mm-hmm. parce que doom. Mm-hmm. Hmm? doom neex na ko mais boo ko bu la ko yàlla maye. da ko war a yar. éducation la baax dafa am ko parce que man waxe yow sama papa. rewoon na ma. bu ma nekkee xale mais bu ma laqoo. Hmm? tey ji bu dundoon tey ji. Hmm? fekk ma loolu. mais dem màkk même da ko bien màkk sax mu dem. mu laa ko sama papa la sama baay la. oui mm. parce que bu may jàng école mu rek soos yàpp daf may sentir ba mu fees dara ma dem Medina dem école dem jàngi. midi mm-hmm. su ma wàccee. Mm-hmm. Hmm, du ma jàngi ngoon quoi. Mm-hmm. suba gi laay jàng. voilà su ma wàccee maa ngi ci biir kër gi. waaw jàng samay leçon. dëgg la heure foofu bu jotee ma dem foofu yi waaw. yàq nañ la mais yar nañ la aussi. oui oui yar nañ ma. sama papa ma yar. mais nag rewoon na ma encore. Mhm. ma dara quoi dama daa may xaalis mhm. dama ay coiffeur may mhm. ah, da su ma nee paa jëndal ma lii daf ma jëndal mais tey am na lu mu def ci loolu ci yow loo xam te ne même bu fi nekkulee sax euh, am na loo xam te ne doo ko sañ a def ci ginnaaw loolu am na solo am na ah. solo man sama paa su ma ko mosaan gis paa bi su ma ko mosaan gis muy ñëw damay daw làqatu ji quoi sama booy yëpp parce que paa bi du la mais boo defee loo xam ne waroo ko def bu ñëwee da lay dóor loo xam tal la mais moom mosul dóor doomam ko mm-hmm. xanaa nga def benn affaire. Mm-hmm. wala nga kii yàq benn affaire wala nga def nii wala nga saaga wala nga saaga. tegaat la ci raay bi. waaw day teg ci raay bi. Mm-hmm. waaw paa moom mun na rew bépp rew mais. ay saaga ay kii ni wala def ni nii. moom yooyu am na ci quoi. mais am na solo côté boobu euh, ba bon euh, parce que débat bi day day gën a dem di gën a neex mais dafa am loo xamante ni tamit euh, dañ koy seetlu ci parents yi maanaam. Euh, euh, des fois day xaw a naqari lool pour baaji pour baaji yar parce que yenn saa bu yëkkatee loxoom teg ko ci doom ji yaa jug wala yenn saa yaa ji tamit contraire lay doon yaa ji bëgg a yar ji bañ ko yenn saa yooyu tamit da ciy am. waaw mooy li sànq rek. moo tax ma ne la gis nga doomu aadama. Mhm. sa jabar. Mhm. bu jugee kër ndeyam ak baayam. Mhm. am na éducation yoo xam soo gisee neexu la. ngay fexe defaraat. defaraat nag du dóor. du saaga du wax xam nga lan la yedd ak waxtaan. gis nga borom kër xale yi léegi de déggatu non non pas pas xale yi. soxna yi gis nga soxna yi. Mhm. damay gis gars yi ni ñuy dundee ak soxna loolu baaxul gis nga soxna jigéen ñoom ñëpp a yam mhm. neex nañoo nax neex nañoo waxtaanal. Mhm. comme ni xale yi neexee nax nii ci mbedd jigéen da koy woo ngay waxtaan ak moom. di koy yedd. des fois boo ko bëggee wax dara mu leer na lii dina ko touché fexe koo neexal ci dara ba pare. ba mu kontaan. nga doog a toog ak moom. ne ko ah lii ak soxna si lii ak lii kat. bu mm-hmm. ko defati del def am ay côté yooy waxee la di nga soxna ay côté koy yor pas xët xët <laughs> ay dama lay lii dama lay laal us yëngal na boobu daa mel ni d'accord yooyu yooyu yorul jigéen waaw mais bu yàggee da koy tàmm waaw mais xam nga mais xam nga jigéen xam nga tamit dëgg <laughs> dëgg moom dëgg dëgg moom dëgg moom kenn du ko raay moom dëgg moom dëgg moom kenn ko raay mais lii dëgg ku wàcc ku wàcc yoon ñu teg la ci yoon mooy loolu daa mel ni duud daa mel ni daa daa bëgg kii duudu baal ñu libéré la yow daa mel ni añ baa ngi lay xaar de waaw waaw rafet na jërëjëf yàlla nga dem àjjana suba. waaw mais mais daal li ma leen mën a xamal moom mooy mooy affaire yi daal vraiment vraiment métti na gis nga xale yi nii walaay lazim xale yi léegi dañuy demee école di jàngi téléphone la ñuy duggee ci classe mun nañuy jàngee koo ci wax mu ne la téléphone téléphone léegi lépp ah internet laa koy liggéey lépp par message la ñuy liggéey Android il faut ma am ko pour mën a jàng kooku noonu tey gis nga dëkk bi fi mu toll nii daal jàmbaar. yar yar bi moom euh, affaire bi daal sabar gu tas la ku ci nekk fi mu toll nii daal moom ñaanal yàlla sans borom yàlla yàlla defar xol yàlla jubbanti ndaw ñi ah euh, aussi tamit defar Sénégal te aussi tamit ñu ñu jiite sax instant bi dañoo talu ndaw ñi ndax aussi tamit instant bi taluñ ndaw li xoolal professeur yi tey bu njëkk ba yow mii bi ngay jàng samedi ak dimanche yaa ko moomoon mais boo seenoon mose ngi ñëw day doo daw doo taxaw ngir lëndi ba ngay xalaat kon na yooyu noonu ñooñu nga amaan daal leen bàyyi xel yooyu moo nekkoon sa faiblesse ba yu bari doo ko ñemee def yooyu yëpp la xale yi talatuñu léegi fi mu toll nii ah tey ci xale yi lañ wax de mais bàyyil xel ne suba dinañ waxaat ci ñoom de ndax est-ce que ay vidéo yu ñu def ba te génnagul. non dëgg fi mu toll nii tamit nit ñi tamit il faut ñuy bàyyi benn affaire tamit gis nga xale yi def benn affaire boobu bañ ciy wax ñoom kenn xamul luñ mën a doon suba. parce mhm. que defee benn affaire. muy erreur soo koy publier di ko partager ku ne di ci wax di ko publier fu ne da koy ñàkk loo jóg. loolu moo manqué ci dëkk bi nag ah, image boobu ngay yàq image am boobu nga yàq xañ na erreur la defoon suba mën na mën na retrouver wu. Mhm. nekk nit ku baax ci réew mi. je veux dire loolu loolu loolu tam loolu tamit beneen beneen la parce que tey booy xool Sénégal euh, yàkkamti nañu génnee lu bon parce que tey je tey loolu mënoon na am bon bëri na ñoo xamante ne ñi ngi def ñi ngi def seen ñaawteef. kenn xamul leen parce que buñ koy def kenn du ko filmer donc tey débat bi mënoon na bañ a am tey su fekkonte ni ñoom filmuñ seen bopp te boobaa kenn du ko xam ça reste entre ñoom ak seen borom moo tax dëkk bi actuellement nañ leen toog dafa xaw a doy leen waxtaan ñoom yedd leen parce delloo si waat leen mm-hmm, mm-hmm. ci mm-hmm, parce bi ñoom ñooñ di def loolu parce mënatoo dem sa école soo demee jàngi bët boobu lañ lay xoolee di la wokkante diw moo doon def. surtout loolu dégg naa ci koo xamante ne nee na bu doon sama doom la dama koy génnee. kooku waxu waxu waxu kilifa <laughs> yaa ngi koy gën a sànq. boo génnee sànq ko <laughs> xam nga kooku nan nga koy def xëcc ko. Mm-hmm. man su fekkoon ne man kenn mi ngi ci man. Mm-hmm. ma jur ko. Mm-hmm. du ma la beddi tey laa lay gën a téye. dëggantaan dama lay xëccaat nga ñëw. école ba nga newoon moom dama la fay génnee. ma tamit dëkk bi am na mag ñu bon ñu yàq xale yi tamit rek. ñoo xamante ni xooluñ leen jëlee <laughs> école boobu yóbbu leen beneen école bu ye boo xamante ne peut-être même bu dee ci raison yi sax. Mhm. nga yóbbu leen ci raison yi foo xamante ne affaire yi rumeur bi du fa mhm. xam seen kanam mënoo ko xàmmee à cent mhm. xam rek ñoo leen mën a gis. ñu génne leen yóbbu leen yeneen école ñu nekk foofu ñu jàng parce que il suffit que ñu ngi ci école boobu duñ concentré concentration moom jeex na foofu Mm-hmm. ndax yow chaque jour yaa ngi toog ma toog ak yow nga xam ne man nii xam nga ma maa doon def lii. Mm-hmm. yow da ngay perturbé wu. Mm-hmm. leen jël yóbbu leen beneen école boo xam ne xamuñu leen. ñu casé leen jéem leen a delloo si waat leen société parce que mën nañ doon lu ne suba. jërëjëf allahu ahlam. jërëjëf subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun. bàyyi ma bàyyi la kon nga tàggoo looy looy looy ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. di wax yàlla yàlla na suñu borom soppi jikko yi dëggantaan waaw kilifa yi tamit ñu xoolaat doxalin bi xale yi tamit xam ne seeni waajur ñi ngi daj lu ne ci ñoom mhm. Mhm. ñoom ñu jéem a sàmm mhm. euh, doxalin bi ba yàlla def li gën daal ci barke Seydina Muhammad amiin amiin yi tey tey tey daa a xorom tey non non tey kay xanaa dañuy dañuy jégaluwaat sax xam ne ñun ay jaam rek lañ dëggantaan aussi mënuñu yàlla moo mun donc des fois ñu demee xol nii mais du lu nekk suñ nekkul suñ jikko nekkul suñ xol mhm. àdduna nit nag day juum mhm. kuri juum amut mhm. ndax ka lay corriger ci boppam day juum fi yàlla rek moo du juum ñii ñu dem xam ne ay xale lañ waaye tamit am xale yi donc il ñu yaraat leen quoi ndax yenn yi tayeef la ndax man ki ma comprendre mooy kii ko njëkk a def kooku mën naa jàpp ne kii xamutoon mais xale yi nii donc seetaan nañ fi cinq vidéo ci ginnaaw mhm. seen i morom def ko mhm. xam nañ conséquence bi leen ci fekk mhm. kon ñoom buñ ko defee yenn yi tamit donc yenn yëf maa tay la wala dara xale yi nañ jéem a wormaal seen kilifa yi te jéem a rayante concurrence yi dem jàngi teral seen waajur yi liñ naan doom boo defalul sa ndey sax nga noppal ko mais dimbali woo say waajur dimbaliwoo sa baay dimbaliwoo sa yaay ba pare ñëw fitnaal ko xam nga ne ñuy seen ndey yeeg seen baay lekkuñ naanuñ lan la ñuy wax waa koñ ba seen génn buñ génnee nan la ñuy buñ dajee programme yi nan la ñuy wax ah ñoom bu ñu gisatee nit di def lu bon sax sañu ñoo wax ndax bu ñu waxee ñu ne sa doom da nga fàtte sa doom ah il faut xale yi delluwaat seen xel yi warmaal seen waajur yi dimbali seen yaay yi may leen ñu dal ak xel bu dal dem liggéey jàppale seen waajur yi ñu ngi jéggalu ñëpp nag mm-hmm. xam ne sama aw buur këram beeg sama ñaareel xaritu jëkkëram ah, bi nuyu ma leen man ah, ñaaw na trop <laughs> récemment mooy fi ma fekk sànq dañu ñëw indi taaj añ faaw nga ñëw foofu ah, tamit foofu faaw nga ñëw fa toog waaw tegu ma ko fenn non li ma tegu ma ko fenn <laughs> maa ngi nuyu sama <laughs> soxna yi sama aw buur këram nit ku baax wax dëgg fa yàlla ak sama ñaareel xaritu jëkkëram ñoom ñaar macha allah ni leen waaw ni leen yàlla def nii moom yàlla nañ ci yàlla nañ ci ah, a continuer kon kay kon kay man la kon kay fi mu toll nii kon man zemi la ndax sa sama général laa toogal fekk nga leen fa sànq sax ah, fekk nga leen fa foofu mooy place bi ah. sa waaye koy mooy sama général moo tax tey yow taloo xorom tey saa da ñëw xoolal da ko daaneel te yëgul sax li xew oh, Monica Beauty kookoy sama ñaar waaw mais nag faaw ñu jaar waaw non da nga fay jaar sax loolu force la nga dem aja ñu ngi tàggatoo nag Eh. donc débat bi liñ ci bëggoon rek mooy eh. euh, di sensibiliser waat nit ñi eh. ñu ñëpp ay ndaw lañ mm-hmm. génnuñ ci ndaw ñi mm-hmm. ndax ay xale lañ mm-hmm. nekk ci yoon di dem donc bëgg a war a sàmm suñu image yu dañuy waxtaan rek ndax boo xoolee ñun ñu seq débat bi ñëpp ñun ay jeunes lañ ñun ndaw ñi ñooy nekk di yeddaat suñu bopp pour bëggaat lépp mu baax donc dañ bàyyiwaat xel xale yi tamit sóoraale seen waajur yi yërëm leen dimbali leen te bañ leen a gàcceel bañ leen a toroxal mhm. te seen ambition bu njëkk muy liggéey teral seen waajur yi mhm. mais pas ñuy def lu bon ngir mhm. jéem a tënk seen waajur yi ci kër gi ba duñ mën a génn dootuñ mën a defati dara donc nañ bàyyi xel ci loolu te góorgóorlu donc te ñu jéggal leen te xam ne ay ndaw lañ te ñuy waxtaan ak ñoom dëgg nag te bañ di raay raay gi maslaa gi moo fi ëpp ñu ñuy wax xale yu dëgg nañ leen di xamal ne leen lii boo ko defee après lii moo la ciy fekk sa ëllëg si àdduna nii la sa ëllëg alaaxira tamit lii moo la ciy fekk. Mm-hmm. il faut xale yi ñu leen di ndax am na kàddu yi boo gisee tey suñ sa mm-hmm. mu defar ñu bari buy wax. Mm-hmm. day laal góom bi neexulul kenn. bis penc da xamal la la fay xaar. xamal la ci àdduna lii moo la fiy xaar. boo deful lii lii moo fi def lii wax yàlla la. boo ko boo ko defee yaa xam boo ko deful yaa xam. romb la jóg dem yoonam. mais nekk fi naan non affaire yi kay moom su duñ ko defoon nii moo taxit. <laughs> booy defee nañ ko noonu ñu ngi jégal nag di baal ñëpp àq tey jégalu suñu borom yal na yàlla def jàmm Sénégal nag lii la jàmm lañ xam donc kontaan nañ ñu ngi leen di bàyyi noonu kon ñu leen jox di dig daje ba beneen yoon beneen émission incha allah rabi jërëjëf jërëjëf ça a été un plaisir a ñëw fii sonaloon leen lool nag parce que fekkoon naa ñu teg seen débat bu yaatu ñoom tam doon waxtaan seen biir ma ñëw imposer leen débat bi donc euh, di leen jaajëfal bu baax a baax a baax jaajëfal képp ku fi nekkoon Euh, di gërëm Binet ci ginnaaw caméra bi di leen jox rendez-vous lu yàggul dara incha allah ci yeneen gis-gis ci yeneen wax sa xalaat ak waa Télé Sénégal n'oubliez pas de vous abonner quand c'est important c'est sur Télé Sénégal jërëjëf gars yi merci beaucoup